الحمد لله موجد الموجودات الباسط الأردن بلا محين كلا ولا سريكات النافذ حكمه في كل الكائنات المنزع عن كل ظلم والجنايات وأكمل صلواته وأتم سلامات على خير حبيده من ماد وآت خير من أرسل إلى الأخلاق لإزالة العوائق النفوس والعلاقات mbokk yi gannaaw bi nu sant yàlla mi nga xam ne lu am moo ko amal hmm. yàlla mi nga xam ne tabaarakallaahu moom rek moo fi nekk ba illaa macha allah ba bés ba mu koy soob yàlla moomu nag nu ngi koy sant bu baax moom mi digle ne suñ santee mu dolli ñu kon ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu tàmbali programme bi ba léegi fii ci Sahel Network TV ci bànjul tabaarakallaahu mu ngi nuy may kattan ñuy ñëw di ko def fii tabaarakallaahu nuyu nag euh, julli ci sang bi nag muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yonent bi boo jullee ci moom benn yàlla julli ci yow fukk hmm. soo jullee ci muhammad fukk yàlla julli ci yow téeméer soo jullee ci rasulillah téeméer yàlla julli ci yow junne ku julli ci sayduna muhammad junne yonent bi ne sama mbagg ak sa mbagg ba biir aljana kon yenn yàlla defal loolu ci salaatu salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu ñaanal yàlla nag suñuy kilifay diine suñuy kilifay aada tabaarakallaahu yàlla may leen kattan yàlla yàggal leen fi ñu ànd ak wér yàlla jàppale leen suñ kilifay aada lépp lu nguur soxla ak gouvernement yal yàlla dimbali leen ci loola ba lépp sotti bi jaay seyduna muhammad yàlla na buñ yor réew ba am jafe-jafe di ca am ñuy am juyaaloo yal na yàlla dëppale xol yépp hmm. yal na yàlla sunu kilifay diine it yàlla yàggal leen fi ndax ñoom kat ñoo yore àdduna ñoom dañuy wax kilifay nguur rek waaye kilifay diine moo yor àdduna mm. ndax mawtul aalimi mawtul aalama mm. boroom xam-xam sax dañuy wax ne kenn bu ci deexee dafa mel ne àdduna bi yëpp ñoo dee ndax kenn bu ci tarxiilisee wax naka su duxul noonu àdduna yëpp ay tarxiis mm. kon suñ kilifay diine yooyu ñu di leen sagoo di leen tiitaru waaye boo tuddee alxaaji imaam Cerno Alin Maska nga xam ne sunu maama doy na sëkk mu yóbbaale mboolem kuy kilifa diine ci Gàmbi di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér waaye nag nuyu tabaarakallaahu borom TV bi nga xam ne tabaarakallaahu muy Aboubacar li nga xam ne wax dëgg yàlla ni nga ko waxee moom ak soxnaam soxna tabaarakallaahu ummi Bathily tabaarakallaahu ndokkeel leen ziyaara leen ak suñu caméraman yi nga xam ne wax dëgg yàlla seen liggéey am na paysin lool ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom it yàlla yokk leen waaye nag ki ma toogal ci palaato bi fii tabarakallahu muy alxaaji Issa mbay ñu ñëw fii tey ci àllarba ji ñu ñëw pour waxtaan ak yéen ci mbiram koor waxtaanu koor waxtaanu koor nag mu ngi xewee fii ci Sahel Network TV man Cheikh Tidiane Guèye ak Issa mbay ñooy waxtaan ba le nag ci talaata ji laajoon nga laaj yoo xam ne laaj yu am solo la mm. waaye dëgg yàlla ñu yeggoon ci it yemoon ci foo xam ne it fu ama am solo la ci doomu aadama yi ñu war koo dundee mm. waaye doomu aadama yi ñu war koo jàppee sunu borom subhanahu wa taala alaaji sax àdduna mm. dafa am li xew yàlla dafa am nuñ ko war a jàppee mm. am yonent bi nuñ ko war a téye suñ sëriñ si am nuñ leen war a téye yii nag boo ci jaawale rek yaa ngi lakk sa bopp àdduna nii lay demee yàlla ci boppam moo ñu joxoñ nguur waaye ban nguur la yàlla joxoñ loolu it mat na xam yàlla moo ñu joxoy kilifa diine waaye ban kilifay diine soy jàng ci laxdari sa dañ lay wax ne way yasalul ulama bo xamul lajal ki xam way way yaxtadi boy roy royal ki nga xam ne moo topp sunna yonent yàlla muhammad kon boy roy royal ku jup way boy laj lajal borom xam-xam legi nak tabarakallah jamono ubbeeku na technologie yaatu lu ne ngay deg way nak yàlla ngi gum fi ci Sénégal wala gambi yàlla ngi len dimbale sen diine sen lépp ñu koy tek ci xaalallahu khala rasul ñu ngi yemoon ak yéen nag ci talaata ba ñu ngi yemoon ak yéen ci affaire muñ mm-hmm. nga xam ne koor dañ ciy jàngee muñ waaye fukki fan yu njëkk yi ci yërëmande tabaarakallaahu ci loolu lañ doon wax ak yéen ci altine ñi yërëmante te fukki fan yu njëkk yëpp yërëmande la waaye ci talaata ji ci biir yërëmante googu mm-hmm. tabaarakallaahu dañ ciy jàngee muñ muñ googu nag ñu war a jëlee ci koor war cee muñalante far am loo xam ne daanu na ci kaw àdduna yépp hmm. ñu doon muy actualité muy coronavirus nan lañ ci war a doxalee ndax doomu aadama nit dara dana ko dal mu wax dara ba bokkale ca wala mu wax dara ba saalit hmm. te xam naa ne tey danañ ci laal tuuti nga xam ne ay yonent dara dal na lañ ñu bëgg a saalit yàlla am lu mu leen wax bismillah suñ Cheikh jërëjëf yaakaar naa keroog talaata fi ñu daanelee woon mooy ñi nga xam ne ñooy diingaat feebar bi ba am loo ci wax waaye sànq si sa biir wax dama dégg nga ne kilifa diine dafa am kilifa aada dafa am kilifa yàlla it am nit ñi di jaawaale sëriñ si ak yàlla te soo ko seetloo si biir coronavirus bi am na si ñoo xam ne ñu ngay joxe ay dog di joxe ay ñaan pour yàlla musal ñu si lii ba si imaam ratib ba ki ba rek mu ngi joxe dogi cere sew. Mm-hmm. xam naa loolu si secondaire yi nañ ci sawar lool lool lool. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu waaye loolu lépp pour lu ñoo aar la. Mm-hmm. ah waaye am na ñoo xam ne ci jamono bële am na lu ñu gisoon ci téere bi. am na lu ñu waxoon ne mu ci téere alxuraan. buñ ko seetee. nañ ko jël def ko si ndox jëfandikoo ko. bu yàggul niit am na keneen ku ñëw ne Cheikh Omar. gënte na ko am na lum digle. waaye man dama doon waxtaan ak suma benn mag. mu ne ma moom day bu ñëwee ni ko saraxeel suuf sax mu saraxe ko. bu ñëwee ni ko saraxeel suuf. baax na ci mbir mi sax mu saraxe ko. am na ñoo xam ne nag ñu ngee jéem a kontar yooyu. te yaakaar naa ne ci suma gis-gis yooyu yëpp lu ñu musal la. naka gisee li ñi nga xam ne ñooy diingat ñaan yi ak ñooy diingat tegtal yi. tabaarakallaahu alxaaji Essa nu ngi lay nuyuwaat beneen yoon wax dëgg yàlla li nga wax dafa jege wantewoo te mel ni lu bokk te bokkul hmm. ndax wax naa fi ca tabaarakallaahu ajjuma ji bi ñuy waxtaan ma ne diine ji walla diine du texte benn kilifa diine hmm. diine texte yàlla la yàlla nag moonu digalit hmm. moonu digal ne nañu topp ci yàlla muhammad sallallahu alayhi waaye moonu digalit yonent bi daf fi joge ci zahir amna ñuko fi wutu ñuko fi wutu nak ba tey ñooñu tamit tabarakallah ñoo fi yor ndonoy sayyiduna muhammad ndax inni ja'ilun fil ardi khalifatan koku moy jàngale na kon ba illaa yowmal qiyamati sesu yonent bi du ñak ku ci tok way nak kan mo ci tok yàlla mo wax ni ati allah wa ati ar rasula wa ulul amri minkum ulul amri minkum sa ndeysaan ñu bëri sax da dégg ñu di ko jox maanaam gouvernement la mooy ulul amri mooy borom ndigal ci yéen borom ndigal na ci yéen bu dee alquran ni mu waxee ulul amri mooy ki nga xam ne tey kilifa diine bi nga xam ne minkum hmm. kilifa diine bi nag bu ñu ko waxee tey même bu dee nguur gi ci kilifa diine la bokk hmm. waaye nag kilifa diine li alquran tëral fii mu ngi koy def kilifa diine la hmm. waye bu fekkee li alquran tëddal nak mom dafa wut benen côté bopom alaaji Abdou Aziz Dabakh radiallahu taala anhu bi Senghor genné cote de la route xawma ci Sénégal dafa indi ben xasida bu reuy nako wama lana wama lana lanaa kodun siwal quraan wama lana kodun moy ñun de ñun jullit yi amuñu len amuñ ben cote lu alquran alquraanul karim xam nga kon nak bu fekke tay da ngay jël ulul amri te ki nga xam ne attewoowul li alquran attewoo boo ko bëggee boole ulul am rek da nga juum da nga juum ulul amri kon soo ko doon jox mën nga ko jox kilifa diine ki nga xam ne tey yàlla teg na ko fi am ñu ko topp mu ànd ak ñoom pour jëm ci yàlla mm. da Seex Sidi Aj Maalik daan wax wutuma taalibe wutuma ku ma jey wutuma ku ma ku ma waaye li may wut mooy ku ma àndal mu saaxabatu ilallah ku ma àndal dem ci yàlla ku àndal dem si yàlla man Maodo man lu lay wut kon kilifa googu tey kooku ulul amri la minkum ndax li alquran wax la wax te tey boo seetloo sarax yi ñuy digle ñoom kilifa yi ak ñaan sarax moom na am njariñ rek sarax na am njëriñ lu mel ni cereeg soog wax dëgg yàlla loolu am na njëriñ de loolu moom tabaarakallaahu mhm. boo ko tegee moom ba fekk nga kii dëgg mhm. kooku am na solo mhm. tabaarakallaahu lu mel ni sarax yi ñuy digle sarax yooyu ku kuy diingal sarax da nga hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis mu ne sarax dana tëj juróom-ñaar fukki bunti balaa. Hmm. tijji juróom-ñaar hmm. mooy tëj juróom-ñaar fukki buntu ay bakkaar. yuñ la yuñ la jéggal sarax rek dina ko def. boo xam ne sarax saa dara kon nag bu dara xewee nga saraxe ngir loolu. kooku alquran a ko digle lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun alquran mu ne du ngeen am li ngeen soxla wala li ngeen bëgg lu du boobu tabaarakallaahu la ngeen yor te soxla ko joxe leen ci kon foofu bëggul nga joxe loo soxlawul waaye loolu joxe loo xam ne amul njëriñ waaye sarax boo xam ne tey day jëriñ kooku dëgg dëgg nag kooku suñ ko tegee lislaam da koy nangu sariha da koy nangu kon sarax yooyu deful lu dul baax ñaan yi nga xam ne yi tabaarakallaahu kilifa yi digle nañ ko ay yàlla tiif ay ñoom hasbunallahu wa ni'mal wakiil ak ñaan ci yàlla jàng alquran yaa salaamu yaa kaafi yooyu yëpp tabaarakallaahu yàlla mu ne ad'uunii astajib lakum ñaan leen ma man yàlla ma may leen su ngeen ma ñaanul ma mere leen kon ko ku am loo ci dingat yow yaa xamul li xew xam nga nag ba léegi dafa am ñoo xam ne dañ gëm ne doo waxee ñu loo wax ñu ne la bidaa la wala lii haza bidaa haza nangam te ñoom dañ xàmmewul bidaa bidaa dafa laaj ku ci wax nga jéem a dem lijjanti lan mooy bidaa bidaa dafa am ay façon am na bidaa boo xam ne dañ ko sopp am bidaa boo xam ne dafa war am bidaa bu dagan am bidaa bu ñu ŋàññi kullu gi loolu la loolu yooyu taxuñoo jóg waaye dana ñëw ci suñu yeneen biir waxtaan bu ko fekkoon nag yëgg nañ fi tamit ku génne kaamel bi ne kawarang fi yooyu moom ay caxaan la hmm. yooyu moom du tewu yonent bi ak nim sellee hmm. fee bu doon feeñu nit naan ko kawar gële boo ko poroglee ci kaamel da ko fi yooyu moom daanaka dangay ngay ne nit ñi léegi seen ngëm-ngëm moo jëmatul fenn hmm. waaye Seydunaa Muhammad bu doon feeñu bay jël kawar di ko def ci kaamel bi ne nañ ko xool ci ndox di ko sangoo konoon mu jox ñu leneen ñu sangoo ko wala mu jox ñu tegtal ñu leneen ñu naan ko ba mu des kawar boo xam ne tabaarakallah donte nag kawar bu jógee ci yonent bi bokkul ak benn kawar. Hmm. waaye nag yooyu moom soo seetee kaamil yu njëkk yi sax kawar boobu nekku fa. Hmm. kon yooyu yëpp da ngay xam ne ay lu ñu di fi sa mu modifié la ci ñiy defar kaamil yeeg yooyu yëpp. dafay am xatta kaameel bi am na ñu koy bind ñoo xam ne jamono ji ñu ngi am baar yu ñu ciy wàññi ñu ngi am fu ñu ciy yokk ñu ngi am ci nangam yooyu yëpp julli di buñ deful seen xel settantal danañ dem ba jaxase seen alquran ji nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon kon waxtaanu koor daal tey yooyu boo ko laajee mhm. dama lay wax rek ne dëgg nag sarax moom dafa bokk ci jaamu yàlla dafa bokk ci ñaan jërëjëf oustaz mhm. sarax dafa bokk ci jaamu yàlla dafa bokk ci ñaan mhm. waaye naka la nit ki war a saraxee foog naa ne kër si ajuma ji ma ngi laa wax ne la ma sëriñ mus na maa wax ne booy sarax nit ki ceeb war nga cee boole dara ndax mu am lu mu ko toogee waaye jox nit ki ceeb ak diwlin bàyyi ko mu dem mun naa am sax boo gëstoo mu jaay ceeb ba waaye boo joxee nit ki ceeb ak diwlin boole ci benn xont dalasi dina am lu mu jógee lu mu jëndee lu mu ko booleel mhm. léegi nag bu ñeneen nit ñi saraxee nit ki mun naa am one thousand dalasi si poosam mhm. ñu ne ko saraxee mu génnee ten dalasi wala mu mhm. génnee five dalasi ba tey sarax la mhm. waaye nit ki ban si ban anam nga war a saraxee booy saraxe yi bu ñu la ne génneel sa yére nga dem ci taati waxande wa seet yére wa ba fa gën a doy waar nga jël ko joxe ko bu ko nañ nga wax ñu nit ki ci yan anam la war di saraxee ak suy saraxee eh, lan laa war a joxe ci wàllu yére ci wàllu xaalis sarax daal ci gàttal ni ma la ko waxee léegi ci biir wax alquran mu ne lan tanaalu xaqiqatal birra xataa tunfiqu mimma tuxibuuna alquran mu ne du ngeen am dëggi dëggi yiwi suñu borom kontaan gi yàlla digle ci sarax du ngeen ko am lu dul la ngeen joxe na doon lu am njëriñ waaye su amee njëriñ kan nga ko war a jox kanaa xamoon ne jullit yi bokk na ci échec biñ échec même sarax asaka gi yàlla wax nañ ko joxe ñi yàlla waxoon ñu jox ko buñ ko joxoon problème bi yi ngay gis ba léegi du du du bëri. kon asaka ak sarax bokkul. bokkul waaye léegi yooyu asaka saru sarax la waaye bokkul. Hmm. maanaam kii dafa ndóol yàlla bëgg ñu génne ko ci ñu ndóol yóbbu ko ci ñi am. Hmm. pour yëf yi wàññee kooku mooy hmm. asaka. dafa am ñu ko moom. dafa am ñu ko moom. yonent bi sallallahu alayhi xam nga du daan lekk sarax. déedéet moom hadiya la daan lekk. hadiya Lo nyu salmanul faris bi ñuy bi muy xam ndax la ko gisaane kat ba waxoon na ko yonent mom. ñëw mujjug jamono da nga mom. moom hmm. waaye na ngay xamee ne moom la soo ñëwee première yoon jox ko sarax su la ko dellooyee nga dem bu subaa nga indil ko hadiya mu ñëw ne ko de sarax la yonent bi jox ngay mu ñëwaat ne ko de sa ko hadiya la yonent bi jël lek ci la xam ne kii sayyiduna muhammad waaw sarax ki ko moom loolu tax ñu ne la soo koy jox bul yëg ne nit ki nga koy jox déedéet yàllaa moom sarax am yàlla jox am yàlla jox la am yàlla jox la nag boo demee ci xaddisu yonent bi wax nañ ne yaddul oliya xayrun min yaddu sufla ma am ñu koy tekkee ne booy saraxe sa ñu ne ñu ne sa loxo bi na féetee suuf ki ngay jox jëlee kaw ñu gëm ne yàllaa joxe loo tam mag ñi suñ daan sarax nit ki danga nga daan gis lañ lay sarax te dañ koy parfum dañ koy parfum ba neex même bu dee xaalis la sax defar ko orne ko defar ko ba everything ko rek mm-hmm. ñu ñëw pour jox la ko waaye bu ñu la ko jox da gis ñoom seen loxo yi féete suuf pour ñëw ne wane ne loxo yàlla mooy jël mm-hmm. yeddul ulya xayrun min yeddu suuf suuf la mm-hmm. loxo bi féete kaw mu yàlla miy jël moo gën yow mi nga xam ne yow lañuy ñuy jëlal sa sarax waaye yàlla moomu nag yow mi ko joxe ngir moom dana la dencal loo xam ne maa anfaqtum min shay'in fa yuxlifuhu yàlla ne lu ngeen joxe lu man di doon dana leen ko dencal muy màngasin ëllëg bu ngeen dajeeg man ma fay leen ko kon nga yëg ne kon sarax baax na ci waxtu wu ne baax te ne ci heure bu ne baax na ci taayam bu ne waaye rawatina ci mm-hmm. weeru koor. moom bu doon weeru koor da ngay wax ne promotion dëgg mooy weeru koor te boo demee ay Makka ay humra jamono ji ci koor xam nga lu taxu gaa yu bëri humra gi bëri noonu. Mm. asaka yee la ñuy jëli rek. jël asaka yee la ñuy dem ñu jox leen ko te seen asaka day duuf. moo gis nga gis koo gis dem na humra bul foo ne Kaaba gi wala day dem pour na kon yooyu yëpp. dafa am lu ñuy jëli ci naar yi xam nañ li ci saraxe xam nañ li ci joxe asaka mm-hmm. ngay gis ku ñoore pour sarax rek mu jox la lu mat one million ne la instant am yàlla jox la kon yooyu nga yëgee ci ne kon day am njëriñ lool boo koy dox ci kan nga ko war a jox mm-hmm. koo jox kon na ko yelloo waaye sarax yi ma gis sarax yoo xam ne eh, juróom-ñaari këyit lay doon teg ci juróom-ñaari potu juróom-ñaari sondeel juróom-ñaari juróom-ñaari juróom-ñaari dajale yëpp nag. wëndale ko ci bopp bi na la am yàlla jox la. nit def na ma ko fan yële. Hmm? benn ganaar gu tuuti. jël ganaar gi wëndeel ko wëndeel wëndeel ba pare ne ma am yàlla jox la ma ne ko yàlla ganaar gu tuuti gii la am. ak <laughs> ganaar yu rëy yi niñ bëree fii. yàlla joxu ma la lu dul ganaar gu tuuti gi. demal na ko mu teel ma ko sama kër na ko waxal yàlla na ko mu teel la ko sa kër. delloo ko ko. Mhm. am ñu am sa gis-gis ne waaw waruma ko xanaa delloo dafa am sarax yoo xam ne moom du saraxu leen. saraxu mhm. seytaane la. dëgg ndax gis nga yoon yi. Mhm. yoonu seytaane am. ak yoonu yonent yàlla Muhammad inna labraara mooy yoonu yonent bi innal fujaara mooy yoonu iblis yoonu iblis nag mooy yi ngay gis dafa xewoon jamono ay gisaane katak ay ay ay ay ay yooyu moo lay seetal naan la sa rawaan wi lii sa nangam yooyu xool ay sarax yoo xam ne saraxu rab rek la hmm. mu digal la ko nga dem indi ko ay poto xorom ak ay nangam waaye sarax boo xam ne daal sarax bu lislaam reconnaître la hmm. moo xam ne koo ko jox mu kontaan hmm. koo ko jox mu bëgg soo ko saraxee yàlla kontaan kon saraxe daal ki ko moom mooy ki yàlla wax miskin ba taxaw tey ca mbedd ma wala taxaw di ñaan boo koy sarax na sarax ba am njëriñ ki nga dëkkal dëkkandoor nga xam ne kii kat loxoom jotul gannaawam mag ñi danga daan gis man ndeysaan euh, maa ngi dégg alxaaji papa Keba Touré. Mhm. yal yàlla yërëm ko. Mhm. ndeysaan mooy jamono bii daan ci def lu bëri. ndeysaan xaritu euh, Serigne euh, Maska. nga mhm. xam ne tabaarakallaahu mooy bàyyi roqeetu Maska. moom ca Dubaay moom it tabaarakallaahu di ko kontaane bu baax. moom it ndeysaan aji roqi Maska ndeysaan doom la ci ustaas Maska. danay taxaw lu bëri bëri bëri ci koor daaw ñun ustaas yeeg. ñëpp tabaski bi xaru tabaski ñii seen tabaarakallaahu ay seen saako sukar ay tàndarma yu ne la daan def ci daara yi. nga corona bi moo tax a tax tax lépp. Mm. xaw a taxawandi. Mm. bu ko fee euh, euh, kooku El Hadj Keba Touré moom dégg naa. Mm. wax nañ ma ci nettali. daan na jël camion ay camion def ci ay xar. guddi la camion bi gaare. maanaam buntu kër buntu kër yi maanaam day wut ñu xam dana jaral mu jëlee nit boori Mali wala bi Bissau hmm. wala Guinée Conakry jëlee fa nit mu ñëw Gambie su ñëwee mu jàngal ko koñ bi ne ko buntu kër gi buntu kër gi buntu kër gi buntu kër gi jàngal ko ko ñetti weer ba fa balaay tabaski hmm. bu tabaski bi jotee mu tàmbale kooku bu camion bi ñëwee rek xam nga du am yaama neex wala kii a neex hmm. xam nga day ñëw yeew ci buntu kër gi yeew ci buntu kër gi ngay xëy rek gis yeew xar maa ngi yeewee sa buntu kër xam nga loolu tey lu ko gën gisuma ko waaye koo xam ne tabaarakallaahu balaam laa jox dana ñëw di la toroxlu di la taggal mbay ma mbay bëse yaay mbay bëse yow yow la sa baay nangam yow la sa yaay nangam xam nga yooyu daanaka du tegu fenn. Mhm. kuy joxe daal joxeel te yàlla tax yàlla mi tax ngay joxe dana la wan ne moom rek tabarakallahu mooy jël kon bu fee daal euh, laaj boobu loolu laa ciy wax nga xam ne ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci place boo xam ne nag mooy ca lañ doon wax ci talaata bële passé mhm. mooy góor góorlu rek yenn yu bëri yi ñuy wax nii ki ko man mooy ki muñ waaye ki jël xolom xam ne yàlla mu dépassé bu dee benn dërëm yàlla dana ko fay lu ëpp loolu sa jërëjëf xam naa sax waxtu waa ñoo xaw a tënka waaye dafa am mhm. laaj moom wala ci rek wala mhm. ñoo del ci waat ci corona bi ndax kuruna bi dafa tombee weeri koor wi mhm. mu te ñàkk a ci waxtaan wi waaye baat bu ñu ooyee am sarax ak hàddiya mun naa téye suma xonta dalas léegi ñëw ne la am ma sarax la Mm-hmm. mun naa téye suma hundred dalasi léegi mm-hmm. ñëw ni am ma jox la hadiya mm-hmm. te nga yonent bi du daan jël sarax hadiya la daan jël lana utee sa lan la lan la leen utale ñoom ñaar sarax ak hadiya sarax ak hadiya li leen wutale dañ koy dellu ci cadre Seyduna Muhammad yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàllaa ko jagleel lu mu jagleelul kenn looloo tax moom yàlla xaraamaloon ci moom moom ak waa këram yëpp kenn du ci lekk sarax ngir lan sarax xëy na mooy loo xam ne la loo génnee la pour jaamoo ko yàlla ci sa moromu nawle doomu aadama ni yow hmm. mooy looy jaamoo yàlla hëddiya it mooy loo jaamoo waaye hëddiya kan moo ko war a lekk hëddiya ki nga xam ne tey dëgg-dëgg nag moo fi toogal Seyduna Muhammad hëddiya mooy koo xam ne tey dëgg-dëgg lil shariat santaane yépp suba ak ngoon mu ngi ca addiya mooy loo xam ne tey kan koy jox hmm. day doon koo xam ne ku ko yelloo la loolu tax addiya boo demee ci kifaayatu raqi bi nag bu maam am Seydi Hadji hmm. nga xam ne moom li gaa yi laq-laqal ak lii soo ko waxee réew mi tas hmm. moom carrément dafa am nu ko gisee na mu ko gisee nag tabaarakallaahu mooy hadiya daal ci gàttal am na ku ko war a lekk man nga ko jox ñëpp nag yéene ko hadiya rek waye mom bu gëmé ne daf koy yello war ko lek mu ngay posal bopam waye hadi ak sarax dal ci gàttal ben la rek waye yonent bi la yàlla haramal ci mom mu lek sarax waye daganal ci mom mu lek hadiya kon nga xamné hadiya moy yonent bi la ko yàlla def khalisatan lak min dunil muminin amana man na lolu yàlla ko ko jaglel kudul mom moom jagleeluñ ko ko waye nak kudul dul bi hit sallallahu alayhi wa sallam mën nga koo jox sarax te boo ko joxee sarax mu lekk ko dana ci am tiyaabo yow da nga ci am tiyaabo waaye na sarax ba baax te jekk. jërëjëf oustaz wax ji leer na. xanaa rek nga laajee nit ñi biir ci kër docteur ak coronavirus bi ci tegtal yi ñu joxe yan matuwaay lañ ci war a jël loo xam ne dëppoo na ak islam pour mu dimbale suñu askan bu defee rek ñu tàggoo léegi waxtu wi jot ndax lu mel nii. kër docteur génne nañ ko wax nañ ni ku nekk sa biir kër nga def ay matuwaay taaj paan bu def ndox yu cee raxasu mm. di fomp di jekkal daal nga xam ne daal mbir mi nañ lan la islaam santaane ci waaw foofu lañ fay wax rek mooy kër doktoor xëy na fekk na lislaam mm-hmm. ndeysaan lu sensible la mm-hmm. lu set la an nasaafatu min al iman gis nga set set gi gaa yi wax nii mm-hmm. ñu di ko wax kër docteur ak télé yi di ko advertise ak ñëpp di ko wax. dafa fekk lislaam jiitu leen ci. yëngu ne kuy silwise Seydina Muhammad la gën a silwise. yonent bi. Hmm. sallallahu alayhi wa sallam. moo gën a silwise kuy silwise ku dul yàlla Muhammad la gën a silwise. Hmm. moom nag moo ñu wax ne seet ki ngëm yàlla la bokk. Hmm. kon nag bu lii xewee muy korona tombel ñu ne tilim dana ko indi ak nangam heureusement fekkul lislaam kii dund lislaam moom. fekkul ko muy tilim. fekk na ko mu set wécc. fekk na ko mu taxaw mu war a taxawee pos position yi mu war a jël yëpp fekk na ko tabaarakallah mu jël ko kanaa kañ kon mu la fekk nga am position boobu kon bu la ñëwee daf lay dimbale rek ngeen ànd kon kër docteur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko waaj buuru yamen ba joxooy hadiya yu bëri ya jox ko hadiya lu new ci alal mu jox ko ci hadiya ba boole ca docteur mm. yonent bi dafa jël yëpp ba mu des docteur mu delloo ko docteur ba na ko ñun duñ feebar mm. duñ lekk te xiifuñ duñ naan tam maruñ fuñ tilimee balaa ñoo tilim seet nañ. est dañuy jàpp juróomi yoon ci bés bi dañuy sangu kon kooku dëgg-dëgg kenn du ko wax biram set. Mhm. dem na ba tubaab yi pour ñu xam ne lislaam moo leen gën a maanaam am na ci ci Amérique ku tuub la ko tuubloo mooy ci xaj. xam nga xaj bu laalee bool. waaw dañ koy raxas da nga koy raxas juróom-ñaari yoon. kooku jaraloon na ko pour mu ne juróom-ñaari yoon yooyu mu wéddi ko dem jëri ay maanaam camikal yi ñuy raxasee ay mataar ay efrit lu mu ragal ne mën na rey microbe. Hmm. mu def ko ci bool bi. raxas ba bëgg a dee su tegee appareil bi gis microbe bi. Hmm? ah mu ne waaw xaaral ma seen njàngaleem yonent bi nag raxas. benn yoon tuur ñaareelu yoon tuur ñetteelu yoon ba tuur ba ba sa ñeenteel juróom-ñaareel mu def ci suuf nii tuur jël appareil bi teg gisul benn microbe mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon set ci seyduna muhammad la fekk baax kon coronavirus bii nga xam ne ñu ne set lañ ci bëgg kon nañ jàppale kër yonent yàlla muhammad kër yonent bi nag mooy set docteur yi ñëpp dañu ànd ñëw bokk ci école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon na ku bokk ci école yonent bi rek danga nga set da nga silwisi da nga succ da nga brosse da nga def everything kon nag ñun corona bi fekkoon nañu ñu miinoon ko kon ñu gën a tàbbali rek gën a moytu comme yañ wax moytu ko rek góor góorgóorlu ci tabaarakallaahu yàlla dimbali ñu te taxawuñu bi jaay jërëjëf sëñ Cheikh dafa mel ni li ñu sant si corona bi mhm. moom lañ ñu santoon ca Ebola santoon ñu ko sa choléra mhm. kon nag nit ñi war nañoo mun a dimbali seen boppa tënku ci li kër wax ba yàlla musal ñu ci mbir mi. kon nag fii la woon ci seen network TV. Sahel network TV. àndoon ko ak oustaz Cheikh Tidiane Gueye. waaye balaa ñoo daaneel ñu dellu gërëmaat boroom kër gi. El Hadj Aboubacar si Abu Aboubacar Bacili. ak soxnaam soxna Oumy Bacili. waaye di gërëm El Hadj Idrissa Mansa si soxo mi nga xam ne moo ñu jokkale ak ñoom. ba lii yëpp mun a am. di gërëm suñuy waajur. di suñuy wasila sëriñ Babacar si Mouhamadou Mansour ak njabooti maam Seydi haji Malick gi yëpp waaye delluwaat di gëlëm Tafsir nga fi di nuyu ahlu fédération di nuyu jamiyatul tijaaniya fi hadratil malikiya oustaz kon doog dig daje ba insha rabbi insha allahu rabbi alxames spécial gamu la ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defé fi ci Sahel network TV ñu xamé ci ne tabarakallah ñom di xawma ñande way ñu ngi ci diine ji way di xawma ñande la yonenti bi waxon ci harafat balliqoo anni walaw aya jotalil len ma sama message bi donte ben aya la ñom tabarakallah wa Sahel network TV ñu ngi ci waaye nag alxames mom spécial lay don kon yéen soppe yi ñu sétane ci Sahel network TV bi ñu ngi len di wax ne incha allahu rabbi tay mom jàll na ci àllarba ji ci waxtaanu koor waaye alxames ngeen bañu xel ci seyduna muhammad yéen soppe yonent bi yéen ni nu namm te kenn taxul ngeen nammoon muy seyduna muhammad moo tax ngeen bëgguñu fu ñu dem ngeen teral nu ku ne dañu woo di ñu teral ngir seyduna muhammad yonent boobu nga xam ne nag mooy almaru ma aman ahabba nit ku ne ak ka nga bëgg yaa ngi moom ba biir aljana xaar la ñu alxames man ak groupe mu taxabina fillahi ndomba foo nga xam ne ku leen tudd rek ci Serekunda da nga tudd Tidiane gi mbaa nga tudd mu tax bii na danañ ñëw fii nag spécial beneen méthode spécial beneen jëfin nga xam ne tey waxuma waaye waa pale bi sax danañ ñëw wàlli si ci waa tabarakallahu Sahel Network TV ñu joxante dig daje ba alxames ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu nañu yàlla jëf ah oustaz bu ñu fàttee mbir mi le kër docteur ci lañ bokka ah. baarakallah insha allahu rabbi muy sanitaisa bi baarakallah defee ñu ko jëfandikoo rek insha allahu rabbi defee mu mun ñoo aar insha allah ñu ci feebar bi insha allahu rabbi asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf jërëjëf baarakallah